yaakaar ne kuy wër nga yaakaar ne kuy wër benn voix pour am majorité penda mhm. intellectuel nga mhm. yeew yi xaw ma wàllu xaw ma benn voix lañ doon wër pour am pour am tudd sax majorité wala non trois voix xaw ma pour am majorité nga yaakaar ne bu ñu amoon preuve du ñu dem déposé Podor ak ak ak ak ak foofu noonu. mais nee nañ am nañ preuve parce que dañoo gëmul li nga xamante ni moo di. conseil constitutionnel taxawaay pourquoi ba ñu demee ba waaj daanaloon seen Dakar ñu dem conseil constitutionnel conseil constitutionnel jox leen dëgg ñu dem élection pour lan c'est-à-dire man loolu laa wax dama ne ñi ñu am devant nous c'est c'est un groupe de mafioso ay mafia lañu ay maanaam ay c'est un groupe de menteurs pour tubaab bi mooy gën a rafet ko olof bi donc un groupe de manipulateurs de de voilà loolu lañu am suñu kanam c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas c'est-à-dire maanaam amuñu culture wax dëgg maanaam seen càllaleeg seen caada yëpp ay fen la leen yàlla bindee mais un groupe de manipulateurs comme noo leen tuddee bi nga xamante askan bi jox nañ leen bopp bi nga xamante ne xaw nañu installé li nga xamante ne bi bokk yaakaar la cohabitation askan bi benn si bi benn bokk yaakaar lañ jox bennoo bokk yaakaar lañ jox bopp booy wàññi da nga naan bennoo am na juróom-ñetti fukki député ak ñaar dëggalul dëgg nga ne ñee boo boolee ñoom ñoom ñi àndoon ñëpp ci opposition am nañ juróom-ñetti fukki baat baat kan moo ëppale mais mais mais ba c'est-à-dire non non non xam nga d'accord naa naa ni ba tey yéen yéen a ëppale non xam nga non ci ay nombre de voix bi mel ba tey tamit ci assemblée yéen a ëppale dama bu ma ni ka da jox bopp bu ngeen joxoon bopp ba tey du ne si lam-laame naan non ñoo gañe gañe moom yéen yéen a koy lam-laame yéen presse dama ne dañ ne ku gañe dañ ñay wàññil ñaata nga am ay ay sièges yu ñu war a toog ñu dem ñun ñu dem ñoom ñu àndandoo ñoom ñëpp tir groupe ci benn Bokk Yaakaar sama yaay mi muy tuddee làpp leen làpp yu mit jigéen jiite liste bi làpp leen làpp yu mit te ci loolu la ñu war a dépassé cadre góor war na nekk fi jigéen war na nekk fay yaa ngi dégg amul loolu ñu dem ñu teg siège ñu ñu sama yaay mi muy tuddee dem dem récolter quatre-vingt-deux sièges ñoom ñu am quatre-vingts maanaam liste bi sama maam Abdoulaye Wade jiite liste bi nga xamante ni kenn xamul ko jiite mooy liste fantôme yi ñoom ñëpp boo leen boole quatre-vingt lañu am donc ku jiitu mi may jiitu. mais que soit alpha. yéen ak ni président Macky Sall def ci réew mi nga defoon waroon ngeen nekk ci jege yow boobu c'est-à-dire booloo am 80 yéen ngeen am 82 maa ngi sànni barki démb rek Angola c'est la chose France c'est la chose démocratie réew dafay avancé dañ démocratie moo avancé ba nga xamante ni yooyu dafa commencé xew yi. yaa ngi baax ay ay ay am naa cent vingt députés yow am nga trente yooyu moo commencé xew ci réew yi. donc loolu da ngay comprendre partout au monde loolu dafa commencé di évoluer xam nga bu ñu fekkee dañ bëgg natt euh, démocratie fu mu toll c'est-à-dire ni dafay dafay yéeg dañuy dem moment boo xamante ni les peuples aspirent à autre chose. ci wàllu ci wàllu ci wàllu ñu yoree réew mi. c'est ça dañ koy nangu accepté ko. mais dama ne bu fekkee wàllum jiitu ak jox bopp dama jàpp ne bu ñuy wàññi ñu ne yow am nga 82 ñee bu ñu leen boolee ñoom ñëpp ak seen wax ju bari seen casserole tëgg nañ fi sabaru casserole mooy kii nu mu tudd sax Ousmane Bongo Ousmane <laughs> tëgg na fi casserole wax na fi fen na fi wër na Sénégal ba mu daj. 80 voix maanaam amul 80 ak 80 voix. mais yéen nga xamante da ngeen jógee da ngeen jógee ca 156 et quelques voix. tersis ba ci 82 Pape Diop ñëw daal leen dimbali tuuti xaw leen naa sauvé euh, ñëw daal di dolli sukk yi nga am li nga xamante ni moom moo di la majorité te loolu nag mën na ko bañ malgré ñaari at yuñ toog bëri na sax ñu nga xam bokk nañ si yéen ñu nga xam ñoom nangu nañu ni vraiment seen résultat bokk na réew def nañ ñaari at yoo xam ni tuuma fen manipuler nangam sangam malgré tout cela dem nañ élection Macky Sall raw leen yaa ngi dégg baax li ma wax malgré li yëpp fen ko fi yëpp Macky Sall raw na leen te génn gudd président Macky Sall moom génnul benn ñaareel bi mooy ci biir élection yi ah, yaa dafa am ay lâche hmm. dafa am ay lâche ay traître Benno Bokk Yaakaar yoo xam ne dañoo voté contre Benno comme ñan bëri na am na departement de Pikine am na département de Guédiawaye am na am na département de ba am na département de Saint-Louis. mais lu waral loolu dañoo kontaanul ci ci. non pas loolu sax. wala dañoo jàpp ne Macky Sall mooy mbir mi mooy bañ a yéene sa moroom lu baax. fal nañ penda maanaam investir nañ penda nga ne penda du jàll nekk député nga jël intérêt benn bokk yaakaar sacrifier parce que tout simplement bëggoo penn nekk. mais ma defoon lu ni service de leçon ci local parce que local yi bëri na quand même. ñu bëri bañ taxawee def analyse dañoo ni ñàkk booloo moo waraloon ngeen perte. yéen mais bennoo bennoo bennoo bennoo ñàkk booloo boobu moo leen perte loo ci élection locale yi. perte maanaam pas perte sax quoi moo perte loo bennoo ci yenn dëkk yi perte loo leen encore ci yenn dëkk yi ci. ci élection législative yi perte la rek da moom. dëkk yi amul amul ci yenn dëkk yi. kon da nga jàpp ne da nga jàpp xëy na loolu nga wax. non man bu ma dugal. ah déet loolu nga wax naa ma ay ma man man mosuma ah, wax ni fii fii. da nga jàppale Thiès waaye quand même dafa nekk tamit région bu am solo. di capitale te da fi perte da ngeen fi ah, perte locale perte législative. yéen journaliste ne euh, xale bi. am solo moo tax président Macky Sall yàggoon ko bëgg gañe. dama ne dama ne da ngeen jàpp moo gën Matam wala Dakar moo gën Kaolack wala ngeen jàpp ñun moom mën nañoo jox sa askan bi wax la ñu ñu wax. ah déedéet dama lay nekk laa mi lekk moom ta ñor. ah waaw carte bu nekk moom carte d'identité ak carte d'identité carte d'identité la rek. urne urne la c'est-à-dire que ñi ne Dakar am ñu sañ-sañu euh, voté contre Macky Sall. mais nan la seen voix ëppee gën a tekki voix ñi nekk ñi nekk Kédougou Salémata non loolu kenn wala ñu nekk nangam ni dañu ni euh, di capitale di région te bu am solo euh, ci cartographie Sénégal ngeen bëgg ko gañe lool ngeen yàgg ko bëgg gañe Dakar Macky Sall euh, mosu gañe waaw loolu laa wax amul mberteel waaw waaw loolu laa wax dama waaye quand même bëggoon gañe ko peut-être balaa muy balaa muy jugee balaa muy jugee balaa ci bopp réew mi xam nga xam li am ci élection yi li am ci élection yi mooy cest dire que ni hmm. yaa kën a te daan ko gañe bis bu nekk peut-être que sax xaw na xaw na xaw na ñëw xaw a xaw a yéem ñu bëree bari bari ça ça ça ça la l'acceptons mais élection locale Macky Sall daf perte Dakar perte Guédiawaye perte Rufisque il il les a perdus Pikine rek lañ gañe message bi nga xamante ni euh, sénégalais dañ ko ko loncé quand même ci législative bi am solo ci sanctionné sanctionné sanctionné quand euh, li nga xamante ni moo di les transhumants ba tey mu mel ni président Sall moom moom comprendre lu ni mu mel ni mu mel ni comprendre lu lu mel euh, tax ba mu accepté peut-être benn voix wu Pape Diop non ani tey ji lu nga du voix wu Pape Diop c'est-à-dire que assemblée assemblée compromis la assemblée lay fonctionner c'est-à-dire nationale dafa am ay manœuvre ak ay compromis assemblée yëpp la te fi ñu jëm nii daf koy laaj fi ñu jëm nii dañ koy laaj. dañ am na sàcc bu nekk yeew yi boo xamante ni dafay laaj ñu amnistie ko yeewi askan bi Khalifa Sall xam nga moom sàcc la tribunal la ko àtte ne sàcc la ñu tëj ko mu perte ay droits civiques am pour ñu amnistier ko bon voilà il lui faut trois cinquième de l'Assemblée nationale quatre-vingt-dix-neuf personnes kan ci ñun moo am quatre-vingt-dix-neuf c'est des compromis waxtaan la yaa dégg baax li ma wax aussi le fils de Ablaye Wade qui a revenir waaw ah, loolu dinañ ci ñëw si voilà donc kooku aussi dafay soxla ñaar soit mu mën a impacter ci non soit amnistie wala ñu réviser procès waaw loolu lay laaj mm-hmm. donc yàllaa xam mais en tout cas il aura besoin de voilà fii fi fii kii jaar yaa a un autre boo xamante ni sous le coup d'une condamnation pour perte li nga xam moo tax ay droits civiques xam na boppam mooy ki daw est-ce que comprendre nga donc kooku tamit il aura besoin. mais ñëw Pape Diop ba euh, ñëw Pape Diop. lu waral hmm. tey jii président euh, woolu ko bokk wala bokk mu. woo ko yéen nag xanaa nag da ngeen gëmul li Pape Diop wax Pape Diop nee na discuté wul ak président Macky Sall man loolu mu jàpp. non mais bu fekkee na la tax mu ñëw la loolu. non non xam nga lu tax mu ñëw loolu ci xel ko Pape Diop Pape Diop kan lay nax. Pape Pape Diop non Pape Diop naxul kenn Pape Diop est un homme xam na. xam na man dama déglu mais naka ngay ñëwee fu ñu la woo ngay ñëwee fu ñu la woo dama déglu non dama déglu mu wax benn wax bu am solo ci live bu Mati Fall cest dañ jëm jamono joo xam ni il faut que les hommes d'État dajaloo autour de l'État pour protéger État fa lañ toll. parce que l'État est menacé. waaye super menacé. y a un fils de de rebelle qui est là à rôder autour de l'État kooku jarul jox réew. billaay wallaay. état bi doole nga ne benn nit boobu moo ko mën a menacer. non waxuma état ñàkk dooleem de. Mm. am état am doole moo tax ñu ne ciix ñëpp. waaw ah, la moo tax la moo wala soxla protection sénégalais ils ne comprennent pas grand chose. moo tax dama ne les politiciens la justice fera son travail justice na def liggéeyam mais politiciens la ñoo war fagaru fagaruwaat dem dem dem défendre li nga xam ne mooy la l'état et au-delà de l'état la nation sénégalaise. ba nga jàpp ni jéego yooyu daal la Pape Diop teg. ci acte bi nga xamante ni posé na ko loolu la wax waaw loolu la wax gaa moom da ngeen di gëm li mu wax nag ni loolu la wax Pape mu kàllaf la Pape Diop man dama ko xam Abdoulaye Wade oo fet dafa yarul ci njabootam gi ñoo xamante ni dañuy foyee li nga xamante moom mooy li maam liggéeyul depuis loolu ba léegi muy Pape Diop muy Macky Sall muy Idriss Seck muy Karim Wade ñun ñëpp état dañoo gëm ni Sénégal ndono la ndono dañ ko donn ci Senghor donn ko ci ñëpp nag gis nañu ni eh, Pape Diop tànk yi nga xam teg na ko dara nekkul ci xob yi du rek fexe ba famille libérale bi loolu la yàgg te moom sax li muy liggéey billaa wallaay yàlla na yàlla sottal li muy liggéey ba Ablaye Wade dund fekk dajalawaat na njabootam yëpp mais kon daal yéen loolu laa yéene loolu laa yéene Ablaye Wade mais ba loolu su li nga xamante ni thèse bi gis que ni tout sauf Sonko ngeen teg yéen ban lan tout sauf kan tout sauf Sonko non Sonko Ah, yéen yéen a ko existé loolu non mais déet nag déet nag gis nga bu ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan sénégalais yi lañ loolu bu ñu leen yëpp Sonko daal instant am na morom ci langue politique bi na wax ak moom Pape Djibril Fall mooy moromam na wax ak moom Macky Sall ak ay ñii duñu morom duñu moromam non laataa ñuy ñëw sax ci